mbokki internet euh, Mak TV Sénégal nuyu nañ leen amaat euh, mbégte àndaat ak yéen comme ni ñu koy amalee euh, bés bu jot rek ñu fas yéene na dëgtale xibaar yi li si gën a fës tey dañ koy rek daal di tàmbalee nag ak li nga xamante ni moo di rek coowal ki activiste bii di Guy Marius Sagna moom mi nga xamante nag daal nañ koy arrêté ba daal koy rek place en garde à vue moom nag di Guy Marius mu ngi am gannaaw rek benn publication bi nga xamante ni amaloon na ko rek ci page Facebook am loolee nag tax ba dañ koy. ñu daal di koy euh, teg loxo ndiki euh, démb rek euh, ci dimanche bi sax lañ ko rek daal di placé en garde à vue moom moomee nag nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna xibaar boobee kii di rek nga xamante ni moo di rek kii di avocat am di maître Khoureychi Ba moom moomee nga xamante ni sax moom moo daal di joxe boobe information ba tax na rek moom Guy mari Sagna moomee nag doo moytuwul rek ndiki tey jii moom dinañ ko rek daal di déféré ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di nag euh, addu wax ci leneen wax nag ci wàllum euh, politique ak rek coowal mairie bu Dakar kan rek moo war a nekk rek candidat wu ki nga xamante ni moo di rek Barthélémy ki nga xamante ni moo di Khalifa moom nag doo moytuwul moom moomee nga xamante ni moo di Khalifa Sall nag ki mu daal di rek jox loxo mu di rek ki nga xamante ni moo di rek Barthélémy Diaz loole nag xibaar boobee ñoo ngi ko rek daal di am ba tax na rek bu ñu sukkandikoo si journal bi di source a moom nag kii kii di euh, Khalifa Sall nag jamono ji ki nga xamante ni moo di euh, Barthélémy Dias daal la daal di rek euh, daal di àndal loole nag journal bi di source a ko daal di xam xamlal moom sax muy daal di xam ne ne rek ki nga xamante ni daal moo di xalifa Sall boo gisee mu daf loole lu ñu jël tey rek euh, ñu daal di nag euh, desani ba tey ci xibaar rek euh, daal di nag wax ci li nga xamante ni moo di génnub àdduna ki nga xamante ni moo di rek Cheikh Niass Cheikh Niass nag nekk immigré boobee nga xamante ni moom rek moo mujjee woon ñàkk bakkanam gannaaw rek ba nga xamante ni place bi tey woon nañ ko sax en garde à vue nag commencé na rek jur ab malaise fële nga xamante ni rek mooy ca ba ndax kat gannaaw ba nga xamante ni daal nañuy relever ci ay fonction ki nga xamante ni rek moo di lieutenant de police Ahmed di Ahmed sax Bachir Ndiaye moom moomee nag gannaaw ba nga xamante ni daal nañ koy relever si ay euh, fonction daal di koy jëlee fi nga xamante ni euh, foofee nag la nekkoon moom nag daal dinay euh, mer ba futt moom moomee sax tax mu daal di rek di koy jagleel ñi nga xamante ni si hiérarchie wam moom moomee nga di nag Ahmed Bachir Ndiaye moom daal di xamante ni moom lañ jël pour rek daal di koy jëlee foofee nga xamante ni mooy ca poste ba mu nekkoon loolee nag dañ ko rek daal di précipité ba tax na rek moom moomee daal di xam ne nag loolee nga xamante daal moo di faatu ko ki nga xamante moo di rek Cheikh Niass xam ne rek amul benn yoon na si rek daal di euh, laale wala sax mu daal di si euh, ba tax na rek bu ñu sukkandikoo euh, ci journal bii di l'observateur bi nga xamante ni moom moo rek daal di jëlaat sax li nga xamante ni moo di bindu ko ki nga xamante ni rek moo di lieutenant wala sax ki nga xamante ni moo nekkoon lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye moom nag daal na xam ne ni ki nga xamante ni nag moo di Bachir li mu daal di xam ne mooy que ni rek moom jamono ji li nga xamante rek moo di réputation li nga xamante ni moo di moom ci boppam wala sax ay famille ñii di waa police dañ ko rek daal di euh, naxasal ba tax na rek moom euh, jamono ji mu ngi daal di xam ne ne rek moom euh, lii di faatu kooke nga xamante ni moo di Cheikh Niass moom ba moom nag ba jamono ji ñu wax yéen nag dafa rek daal di jàpp ni amul benn yoon rek boo xamante ni moom daat na si rek daal di laale ba tax na rek moom moomee jàpp na ne rek jamono ji moom dañoo rek daal di précipité li nga xamante ni moo di décision boobee pour rek daal di koy jële foofee nga xamante ni fa la rek daal di nekkoon ba tey euh, ci xibaar yi bu ñu jugee nag euh, fii ki nga xamante ni moo di euh, kii di Cheikh Niass bu nañu dem ba fële nga xamante ni nag mooy ca Italie foofee te benn doomu Sénégal bu am rek lu tolloo fukki at ak ñett moom nag lañu daal di fekk mu daal di ñàkk bakkanam moom ci benn rek nekk la nekkoon ba tax na bu ñu sukkandikoo rek ci journal bii di Les xamante ni sax moom moo joxe boobee xibaar mu ngi daal di xam ne ni loolee nag mu ngi am ca fi nga xamante ni mooy ca Italie ca benn dëkk bu ñuy naan Asti ba tax na rek moom bu ñu sukkandikoo ba tey journal bi daal di xam ne ni euh, ki nga xamante ne moom moo rek daal di fekk xale boobee mu daal di faatu foofee nga xamante ni euh, mooy ca néeg ba nga xamante ni foofee la nekkoon benn cousin am la bu nga xamante ni ñoom ñaar euh, bu baax a baax ba tax na rek journal bi sax daal si yokk ni kooke nga xamante ni moo daal di ñàkk bakkanam moom nag jamono ji nga xamante ni ci la jéye boobee di am nag moom dafa fekkoon ñi nga xamante ni ñoo di ay waajuram ñëwoon fi nga xamante ni mooy rek ci Sénégal jamono ji nag li nga xamante ni moom moo waral boobee xale nag daal di ñàkk bakkanam jamono ji kenn xamu ko waaye nag police itali ba moom euh, daat nay ubbi rek ab l'enquête pour rek mën a xam lan moo tax euh, kooke nga xamante ni euh, moo di doomu Sénégal boobee am fukki at ak ñett rek daal di ñàkk bakkanam ba tey ci xibaar yi ñu daal di nag wax nag ci wàllum wér-gu-yaram wax nag ci Euh, li nga xamante ni rek moom la waa élément wu section de recherche bu gendarmerie bi ñoo nekk fii si Ndakaaru Njaay euh, daal nañ koy rek euh, trouvé mu di benn bande bu nga xamante ni ñoom dañ doon rek daal di jaay ay comprimés ay médicaments sax yoo nga xamante ni ñoom dañ ko doon jaay lii xale jigéen ñi pour rek ñuy mën a di avorter ñooñee nag ñi nga xamante ni rek ñoo di waa section de recherche ñoom nag daal dañuy amal ab l'enquête ba daal di rek jàpp si ñeenti doomu aadama yoo xamante ni ñoom nag ñu ngi leen jàppee ca barab bi ñuy naan kër sëriñ ba foofee nga xamante ni nag dañ fay jaayee ay rek euh, médicament foofee nag lañ leen daal di euh, tegee loxo ba tax na rek ñoom ñooñee sax ñoom euh, ñu ngi daal di xam ne ni information boobee nag ñu ngi ba nga xamante ni am na ku leen daal di xamal ni rek foofee ñu ngi fay jamal boobee trafic ba tax na ñi nga xamante ni rek ñoo ñoo xamante ni rek ñooñee toll nañ si ñeenti doomu aadama yoo xamante ni jamono ji ñoom ñu ngi leen rek daal di téye fa li nga ñoo sax daal dañ leen defeere fa li nga mooy ca parquet ba gannaaw laataa rek ñu leen daal di placé sous mandat de dépôt ñoom ñooñee sax ñu ñuy daal di xamal ni le 7 octobre bi rek ñu daal di dëgmal lañ leen war a rek daal di eh, taxawal fa li nga xamante ni mooy ca kanamu tribunal bu flagrant délit eh, bu dakaar ñoom nag li ñu leen di toppee jamono ji bokk na rek ci association eh, de malfaiteurs ak trafic de médicaments ci wàllum euh, wér-gu-yaram la ñuy ni ba tey wax nag ci li nga xamante ni moo di euh, tolluwaayu mbas mi di coronavirus bi nga xamante ni daanaka jamono ji nag dafa mel ni rek luy tàggoo ndax kat ba su tey bi lu tolloo rek ñaari doomu aadama képp lañ daal di xamal ni ñoom nag daal nañ leen di testé ñu daal di rek euh, am doomu jàngoro boobee nga xamante ni mooy coronavirus ca test yooyu nag ñoo ngi ñuy daal di xamal ni amaloon nañ si lu tolloo ko 1411 yoo nga xamante ni daal nañ leen testé waaye nag ñaari doomu aadama képp lañ jàpp ni ñoom daal nañuy rek daal di am doomu jàngoro boobee ñoom ñooñee sax ñu daal di xamal ñoom ñaar ñooñu ñëpp ay cas euh, communautaire la ñoo xamante ni kenn xamul rek ku leen ko rek euh, daal di euh, jox waaye nag ñu ngi daal di xamal ni lu tolloog seize doomu aadama ñoom daal nañ leen testé ñu daal di négatif am na lu tolloog onze cas grave yoo xamante ni jamono ji ñoom ñoo nekk nag ca lalu sauvetage yi ba su dee benn doomu aadama boo xamante ni mbas mi nag daal na koy daal di yóbbu ba tax na jamono ji gannaaw ba mbas mi dugg see Sénégal ba tey ñu ngi wàññi lu tolloog rek 73 802 cas yoo xamante ni daal nañ leen testé daal di positif waaye ca noonu nag daal si faj lu tolloog 71 870 waaye am na lu tolloog 1860 doomu aadama yoo xamante ne ñoom euh, jot nañ see rek daal di euh, ñàkk seen bakkan jamono ji ñuy wax ak yéen nag lu tolloog 71 ñoo nekk sous euh, traitement bu ñu jugee foofee nag dañuy dem ba Thiès foofee nag lu doy waar lañ fa rek daal di nemmeeku gannaaw ba nga xamante ni ñii nga xamante ni ñoom la ñu tuddee rek borom ñaari tur yi daal di lëmbe foofee nga xamante ni euh, mooy ca Thiès rawatina nag ca kàcce bu ñuy naan euh, Mambara Mambara nag foofu nekk fa la nga xamante ni euh, mooy ca Thiès foofee nag ñuy daal di xamal ni ñii nga xamante ni ñoo di góor jigéen yooyu nag dañ fa nekkee woon rek di amal ay quartier général ba tax na ñoom ñooñee nag moom ñu daal ñii di population bi nag daal di leen daal di tasaare ba ñu tas gannaaw gi nag la ñu demaan nag nekk ca beneen euh, kër bu nga xamante ni ñoom it dañ fa doon ni ñoo di population bi it ñoom it euh, jug daal di rek euh, daal di wasaare boobee activité bi nga xamante am na ñi nga xamante ni nag ñoo yor wàllum yoon foofee rawatina ki nga xamante ni moo di préfet ba nag ñoom ñooñu daal dañuy xamal rek ñoom daal rek ab enquête pour rek daal di xamal ñan ñoo rek waral mbir ñi daal di xamal sax ñoom ñooñee am na si rek ñoo xamante ñoom daal dañ leen convoqué foofee nga xamante xamante ni ah, mooy rek ca commissariat ba ñooñu nag ñu ngi ñuy daal di xamal ni bokk na si benn animateur bu siiw bu nga xamante ni mu ngi nekk foofee nga xamante ni mooy ca Thiès waaye nag ak benn gérant ah, coiffure bu nga xamante ni moom dafa doon nekk foofee di létt ñi nga xamante ni daal ah, ñoo di rek xale yu jigéen tax na jamono ji nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni daal nañ koy am borom ñaari tur yooyee nag doo moytuwul dinañ rek daal di leen yóbbu foofee nga xamante ni mooy ca kanam yoon ndax kat jamono ji ñu ngi daal di xamal ni autorité judiciaire yi nekk foofee ca Thiès bokk na si nag ki nga xamante ni moo di euh, préfet bi ñoom nag daal nañu ubbi ab l'enquête gannaaw bu nga xamante ni euh, daal nañuy nemmeeku activité euh, ñu borom ñaari tur yi nga xamante ni jamono ji dafa rek commencé tag di lëmbe foofu nga xamante ni mooy rek ca bu ñu jugee ci loolu nag dañuy rek euh, daal di wax nag ci wàllum euh, tàggat yaram wax nag ci euh, ki nga xamante ni moo di rek Lamine Diack bi ñuy daal di xam ne rek moom mi jamono ji nag ñi nga xamante ni ñoo di autorité Qatar yi nag ñoom ñooñu dañ ko rek daal di joxoñ baaraamu tuuma gannaaw nag ba xamante ni lii di mondiaux d'athlétisme yi nga xamante ni ñoo ngi ko doon rek daal di organiser atub 2019 foofee nga xamante ni mooy ca Qatar loolee nag jur ab interrogation bu nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo yëngu ca wàllu wi nag dañoo daal di xaw di jaaxle si lan moo tax rek ñu daal di euh, attribuer ñi nga xamante ne ñoo di waa Qatar euh, lii nga xamante ni rek moo di mondial de l'athlétisme yi nga xamante ni euh, moom moo waroon am xamante ni rek mooy ca Qatar atub 2019 ndax kat dañoo daal di xam ne Qatar moom dafa nekk rek dëkk bu ndaw bu nga xamante ni ñoom xamuñu lan moo war a tax rek mu waroon organiser boobu yooyee activité ba tax na rek moom ay procédure judiciaire ñu daal di koy ubbi foofee nga xamante mooy ca France waaye bokk na fële nga xamante ni mooy ca Suisse pour rek daal di xam lan moo tax rek ñii di waa Qatar daal di am euh, autorisation pour rek daal di organiser li nga xamante ni moo di jeu athlétisme yooyu nga xamante ni euh, mu ngi amoon foofee ca atub 2019 euh, jamono jooje nag ki nga xamante ni moo di Lamine Diack nag nekkoon njiit wa moom mi jamono ji nag dañ ko rek daal di tax jiñ baaraamu tuuma bokk na si nag ñi nga xamante ni ñoo di autorité Qatar yooyu nga xamante ni ñoom dañoo rek daal di xam le ni ñoom ñooñu nag dañoo joxoon ki nga xamante ni moo di rek tolloog rek deux milliards euh, ko ko jox rek ci ñaari euh, tranche ba tax na rek bu ñu euh, ni daal nañ koy am ki nga xamante ni nag suñu source yi nag daal ñu xamal ni ki nga xamante ni moo di benn conseil wu Lamine Diack moom doon nañ ko wopp rek mu daal di wax ca boobee mbir waaye nag moom li mu daal di xamle mooy que ni moom jamono ji nag mënul rek addu ca boobee mbir ci fàttali rek moom Lamine Diack moomee nag condamné woon nañ ko fële nga xamante mooy ca France quatre ans de prison yi nga xamante moom juróom ñaari at sursis la woon laata rek muy daal di gannaaw ba nga xamante ne sax daal nañ koy reconnaître coupable de corruption laata nag ñu koy daal di bàyyi mu daal di euh, ñibbisiwaat euh, fii nga xamante ni mooy ci euh, Sénégal xibaar yi ñu daal di koy jeexale nag ba tey ak wàllum tàggat yaram wax nag ci ki nga xamante ni moo di Balla gay 2 moom mi nga xamante ni nag daal nañu xam ne ni kombaam ak Eumeu Sène nag daanaka jamono ji moom daal nay taxaw ko daal di xamal nag moo di journal bi di sunu làmb moom nag ñuy daal xam ne nag Balla Gaye 2 moom nag daal nay ni euh, kii di euh, Gaston Mbengue nag daal nay tëgg combat Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ni euh, moo di rek Eumeu mu nekk nag seen ñetteelu yoon yoo xamante ni war nañ ko daal di daje mu mel ni nag kon moom ki nga xamante ni nag moo di Balla Gaye 2 gannaaw bu bën bu bëre nga xamante ni moo di Bombardier wala ak ki nga xamante ni moo di Boy Niang ak Gris Bordeaux kon nag ki nga xamante ni moo di Balla Gaye nag war naa affronter ki nga xamante ni moo di rek Eumeu Sène combat boobee sax ñuy daal di xamal nag doo moytul octobre wala novembre 2002 daal 2022 daal lañ ko rek war bëreeg mu mel ni nag boobee nekk troisième combat bu nga xamante ni euh, revanche la rek pour ki nga xamante ni moo di Balla Gaye mi nga xamante ni kii na seen euh, borom écurie euh, Tay Shinga moom daan na koy daan ñaar yoon yi nga xamante ni rek moom lañu jotee daje. loolee nag mooy ndar kepp xibaaru tey it leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te di leen wax toujours rek bu leen fàtte di abonné ak di bës de notification bi pour ngeen di mën a am suñu ay vidéo au temps